ak képp koo xamante ne bii rek mbirum sëñ bi soxla la ak ñi nga xam ne sax xëy na di ay jullit di ay mën bàyyi kenn mën na leen ñu fexe ba ñu gën a xam mbirum sëriñ bi gën a xam màggal gi fexe itam ba màggal gi nos yi koy nos ci wàllu àdduna ngir jàpp daal mbokk yi taal bi seen tekki ci Tuubaa loolu yëpp dañu xam ne mu gën a am ay gàllankoor fukki at yi nag am na liggéey bu rëy boo xam ne def na ko ci ci ndigalu xalifa général des mourides bañ koy jàpp ci Cheikh Mahamadou Ba moom nekkoon mu taxawal comité bi jàppale comité bi dooleel ko ba comité bi moo la lu mat juróom-ñett lu juróom-ñett ñu àndal ak sunu mbéyum baax boobu Cheikh Sidi Mokhtar moom itam mu nekk ànd ak nga xamante ne bii ko doon Cheikh Mokhtar mu nekkoon kii nga xam ne itam moom la sëriñ bi tey di Cheikh Mokhtar ñëw wéyal loola muy jàppale ak comité ci comité d'organisation bi loolu lépp nga nekk ci jiital ki nga xamante ne Cheikh Abdoul mu jiite comité bi ci àll ba rafet comité bi am ay bàcc yu bari tey bàcc yi mooy li nga xam ne moo jëm ci wàllu communication mais surtout wàllu culture ndax seen biir bëri ko jàpp ni ñu bëgg waaye ni mu mel ak ni mu dama waxoon taxaw ne kat damay geer sant waaye nag ci ak ragal yàlla ak xam-xam kon si duma xam-xam la ak ragal yàlla du leneen la tuddoo kon loolu yi moo tax ba ñu jël suñu mbir jëlal ko njëkk def kon en 2011 mu defoon maanaam 2012 décembre 2011 mu amoon réussite bu yéeme réew yu bari la woon ñu jël ko defar deux mille quatorze jël ko defar deux mille sept deux mille vingt et un mayee ñu fekk ko ñu ne kat dañu koy defaat ndax xat-xati jamono ji wóor la ñu koy kon kay ñu li ñu def moo aw doxin soppi ni ñu ko daan defee fexe ba li nga xam mooy bëgg sëriñ am te bu ñu loru bu kenn ñu ne kon dañ koy gaar si xar yi bees muy si internet yi muy télévision yi muy rajo yi lépp loo xam ne rek dafay tasaare eh, njàngale ko ci lii doon ko ci soxla ñu ne foofu lañ xam amoon na ko moo tax am na lu ma fukki réew ak ñaar ci continent yëpp nag am na ci am noir réew mbale bi seen yaay yi xam nga lu ci bopp boo dee ci réew arab da nga ci fekk Maroc da nga ci fekk Tunisie da boo demee Asie fu mel ne Jordanie boo demee Europe fu mel ne Angleterre mi ngi ci bon kàddu sëpp la ñu jël ñoom ñoo naan la ñu bambas fukki réew ak ñaar lu ñu seq waxtaan bi muy waxtaan yoo xam ne ay ne loolu ay universitaire kon ñu fas yéene le premier octobre ak le deux ñu daje ngir def ay jàngat ci tolluwaayu jamono ji moo tax ñu dem boo xam ne ak jamono. sëriñ Sam Abdou Latif Diop su nekk ci yaatu moom mooy programme bi juróomi session lay doon alxames day am matine bi ak après midi bi mais ajjuma ji après midi bi lay doon ci la ñuy def euh, cérémonie de clôture ajuma ji suba moom du am dara ndax xam nañ ne ajuma dafa xat kon ñaari fan yooyu am nañ ci fukki communication ak juróom-ñeent bu ñu xoolee fukk yi ak benn juróom-ñeent yi juróom-ñett yi ñëpp ay sénégalais lañ mais fukk yi ak benn mooy ay boroomi xam-xam yu jóge ci réew yu wuute réew yooyu mat na fukki réew ak ñaar yoo xam ne dinañ ci participer tàmbalee ko ci senegal Nigéria Somalie Irak Syrie Liban France Belgique Maroc Mauritanie Angleterre yooyu ñëpp ku ci nekk am na ñoo xam ne fa lañ nekk jokkoo nañ ak ñoom préparé nañ ba war a bokk ci euh, colloque bi kon programme bi pare na incha allah dangeen ci jot kon ci wàllu scientifique moom mën nañ ne lépp yemb na wàllu technique xam nañ ne lu am solo la ren ndax nouvelle technologie la jëfandikoo ñu am nag option boo xam ne dañ koo def ren ci wàll colloque bi option boobu mooy ci ndigalul sëñ Cheikh Abdou ak kilifa yi ñu ànd ceeg UVS mooy université virtuelle di Sénégal docteur Bakhoum mi ngi nii toog moom mooy coordonné équipe bu IBS bi ñu ngi nii ci taw di def di test dispositif yi nga xam ne moom lañ dara a utiliser amaat nañ yeneen partenaires ñu am solo euh, ATS Events ci la bokk ñoom it daaw ñoo fi nekkoon bi cérémonie euh, officielle màggal bi ñoo ko doon couvrir ñoo doon joxe signal bi di li li li liggéeyal comité d'organisation bi ñu amaat beneen koo xam ne moom it ku ku ku gën a yaatu mën a leader la ci wàllu division ci Afrique di euh, Africa Bouquet mbokku taalibe moom ko euh, di sëñ Moustapha Bachir Ndiaye ak Bichri TV ak ñu mel noonu daal mooy ñëpp ñi nga xam ne yor nañ am nañ xarala bu yaatu ñëw nañ ci comité d'organisation bi fekk fii ki nga xam ne mooy gérer intique bi muy Amadou Gueye Ndiaye ñu ànd nekk équipe di travail di liggéeyandoo ba tey ñu am nañ yaakaar ne buñ àggee ca bis ba li ñu soxla dinañ ko am. donc amul amul disons différence de traitement ci diggante presse te li ñu wooyee presse bu dee Sénégal presse nationale ñu bare bari am nañ fi ay correspondant màggal bi seen maison mère bi def je pense que c'est c'est très transparent dañu ci plateforme di jox ay accréditation accréditation yooyu dañ koy joxe selon de critères critères yi nag bokk na ci kenn ku nekk ndax ki nga xam ne dina xëy toucher un million de personnes mënuñ ko yemal ak ki nga xam ne xëy toucher mille personnes àdduna aussi da ngay da ngay objectif mais amul différence de traitement ci li nga xam ne loolu lañ traité nit ñi. la moo di ne euh, kenn kër gu nekk ak nag nombre de personnes koy seetaan wala bu koy déglu mi nag liñ yor dañoo bëgg mu tas ci àdduna si kon buñ gisee koo xam ne kii kii xam nañ ne fam ñu mën a yóbbu kee mënuñu faa yóbbu loolu aussi am nañu liberté collaborer ak ki nga xam ne mën a yóbbu foo xamante ni morom mënuñu faa yóbbu loolu rek la